maaleykum mbokk internet yi ñu di fii ci Saly Escale euh, nekk ci seen terrain de football bi nekk fii ci biir saali ànd ak ceeg délégation man fekk di le préfet euh, le sous-préfet euh, bu nekk fii ci commune d'arrondissement bu Ida Mouride ànd ak ceeg le maire ak délégation bi l'entrepreneur Moussa Seck ko fi représenté Pape Medoune Seck ak l'inspecteur des sports tey nag li ñu fi indi mooy pose première pierre Euh, du terrain bi xam ne moo nekk terrain Saly Escale la maire waxoon ko depuis daaw ne ren bëgg na mu def pose première pierre bi tey nag ñu ànd ak euh, délégation bi gis délégation bi ñoo nekk noonu ñu ngi nekk ci prospection bi gis ngeen la maire moo nekk bi ak jeunesse bi nekk fii mooy président Johnny fi nekk ñoom ñëpp ñëw nañ fekk ci pose première pierre bi ñu ngi doon di wër terrain bi mais nag gis ngeen mbir yi fee dafa démarré bu yàgg sax l'entrepreneur bi gagné di Moussa Seck wane na boppam ci côté bi gis ngeen briques yi commencé nañ ko ci digg terrain bi mais côté bi moom mën nañu wax ne bu ñu posé première pierre bi lii ni mëntu nekk mën am du mat un mois ou bien deux mois mu pare gis ngeen tek nañ bagage yëpp ñu ngi nii ñu ànd ak ñoom nag dugg ci biir terrain bi xool li fi nekk lépp wan leen ko ngeen gis ko fii ci terrain bu Saly Escale la maire Khary Mbaye waxoon ko promesse bu mu diggoon xale yi tey moom mottali ko defal leen li nga xam ne moom mooy pose premier pierre bi nga xam ne war na ko def ci terrain bi bëgg nawetaan ren coupe maire bu ren bi ñu war ko jouer ci biir terrain boo xam ne dañ koy collectiver kanaa ñu ànd ak yéen rek fekk leen fee ñu nekk teg premier pierre bi wan ko déglu xalaatu maire bi ak xalaatu le préfet bi xam ne tey mu fi teewal président de la république man nañ ko wax ah non kilifa ci biir la nekk liggéey bi a ñu maase ba nga ci pose première bi gis ngeen la préfet bi taxaw ak la ma moment bi ñu wax ne def pierre yi balaa ñu pose première pierre bi ñu toog ak délégation ak jeunesse fi nekk président yi président inspection yi ñëpp ngi fi yàlla xagal te barke amiin am nañ ko muuflu ci njëriñu ko biir na di maire yow tamit da ngay téye brique bi tuuti yëkkatil ci ciment bi nga teg. waaw voilà. waaw. maçon nga kana. bismillah. waaye du foofu noonu la. nii la. waaw. dafa xaw la ci kii tuuti. aywa bu la neexee suraxal foofu. ma def nii ci biir. waaw. noonu lañ koy defee ah. waaw xaw na si kii tuuti. sigil tuuti. li ma tamit bëriwul de. macha allah. <laughs> salaamaaleykum mbokk internet yi mbokk Go bi ñu ngi fii ci Saly Escale euh, nekk fekk le ma Makhary Mbaye ànd ceeg euh, le préfet le sous-préfet bu mu Mouride euh, tey ñëw fekkee ci lu am solo lii muy terrain bi ñu teg pose première pierre bi comme nu ma ko mën waxee ci gannaaw ko xooloon article yi ci gannaaw final daaw coupe maire maire waxoon na dina final bi laa ñëwaat fexe na dina bëgg fi am miir de culture kon li mu waxoon xale yi defal na leen ko tey ñëw yàlla daf ñuy teg pose première bi monsieur le maire mbay monsieur mbay makhari la nga ñu mëna wax tay ci bisu tay bi ni muy bis am solo tay ci jeunesse su Saly Escale nga tek premier père fi ni nii ci terrain bu xamne tay ya ko diggee won def nga ko ñak ñaan yalla ne balaa final bi ñew cette année ci dañ ci mëna ñew fekk mi bi paré la nga ñu mëna wax tay ci bisu tay bi tay tey jërëjëf Mamadou Matar sar ñu ngi lay gërëm ba baax di la sant di sant équipe bi yépp waaye nag di jiital nuyo bi ak sant gi suñu sous préfet arrondissement Ida Mouride mhm. ndax mom bi mu ñëwé ci arrondissement bi bop arrondissement bi mhm. dafa ñu ñaax ci ndaw ñi mhm. ba tax na Ida Mouride def na Fass Cekkeen a ngi ci koom mhm. ñun itam ñu ngi koy def comme bis ni tey mhm. loolu dafay ñun lu ñu mën a am sansam mais moom moo ñu ëpp sens mais moo ñu dimbale mhm. ndax su am na yeneen sous-préfet yu fi jaar mais nag comme ni muy defee nii duñu ñaax ci lu baax ci kilifa diine yi ak xale yi jigéen ñi loolu c'est le moom ab sel moom Abdou Moustapha Ba ah. moo ko fi mas a def te loolu day continuer di wel ci ñun mi ngi koy wax léegi kon loolu duñu def lu mooy kontaan ko di ko gërëm inspecteur Kadam bon vraiment inspecteur la boo xam ne moom te tëddul di nelaw. Mhm. ndax même ñun bu ñu xalaat moom day xalaat ñëw jox ñu ñu yiwee xalaatam. Mhm. kon duñu def di ko gërëm ci arrondissement Ida Mouride ci département bi sax mais arrondissement Ida Mouride rawatina commune Saly. Mhm. parce que dafa wane ne moom fii la bokkul ci commune Saly. kon duñu def di ko gërëm ma ñëw nag ci nga xam ne ñooy. waa xale yi saali saali xale yi saali parce que olof daf na nit lu mu am moo ko may boppam xëy na saali xale yi ñii taxaw fii tey saali moo leen ñor dafa am nag ñoo xam ne saali da leen ñor ak ñu saali ñorul mais ñii ñoom saali da leen ñor ba nga xam ne lépp loo xam ne day avancé xale yi rek ñoom ñu ngi ci ci loolu la ñuy wax di ci dund am na ñoo xam ne toog ci rajo di wax loolu liggéeyul saali bon te bokkoon nga bokkatoo tax ngay wax loo xam ne naka su noonu loolu taxul saali avancé saali ñun ñoo ko mën a defar li koy defar mooy ñu bokk ndey bokk bay kon loolu lay wax toujours su amee réunion hmm. muy jigéen muy xale muy mag na ñu bokk ndey bokk bay bu politique ñëwee kenn ku ne fu ko neex mu far mais bu liggéey jotee na ñëpp ñëw liggéey ci commune saali parce que rawatina nag président jeunes yi ak équipe bi nga xam ne ñoo ànd action bi. Mhm. parce que Saly xàmmee woo xale bu fi bokk soon ak bu fi bokk ñi bëgg Saly Amaz amul kenn ku ci xàmmee soon ak ku bokk ci équipe bureau bi ak ku bokk ci bureau bi kon nag loolu dañ ciy gërëm xale yi. Mhm. lii nag moom li Saloum Saly wax lii tiñ bi tiñ bi mi ngi nii. Mhm. en bi ñëwagul parce que préfet wax na ko léegi nee na li mu ñu ngi ñaan ci soon bu nekk dem ba am terrain boppam loolu itam moom ba tey loolu même bu ko ñaanee waaye maa ngi dana moom mu di ma ñaax loolu daf may ñaax. bon loolu ñu ngi ci bàyyi xel bu baax. di gërëm ñëpp di sant ñoom salaamaaleykum. dañ jeexal non bala nga jeexal dañ ñu ci terrain ba léegi te est-ce que mën nañu xam coup bi ñaata la maire bi génne pour def lu am solo li parce que xam nañ ne nekkul terrain bu ndaw. dañu foogoon terrain football seulement la mais bu ñu duggee ci biir xam nañ ne terrain multifonctionnel la ça veut dire que ne lu bëri mën na ci am basket mën na ci am terrain handball mën na ci am xale yi daw mën nañ ci dawee. terrain bu daal jël jël nga sa matukaay yu bëri est-ce que mën nañu xam coup bi ñaata ngeen dégg 10 millions 500 mille la woon mais boo génne TVA comme li may faral di wax 28 pour cent li fi des mënu ko compléter mais yàlla daf ñu bon

bon ñoom dañu naan nekk si mbaar bi mais li may wax ci baaxaw yu préfet moo ma woo ku téléphone ne ma maire maanaam mu ne vraiment mbaar mi nekk ci poste police bi fële à euh, Makagu yi mm. suñu sañoon nga def ci effort bi ma demee waxtaan ak Moussa daf ne ba léegi moom mun na koo jël en compte mm. comme ça bu ñu watee bis dañ koy dugalaale si bit bi comme moom bu ko réaliser su ëllëgee après ñu fay ko parce que loolu mm-hmm. lu am solo la mm-hmm. parce que ba tey maa ngi wax rek ci baaxu préfet bi parce que mënoon na fa jaar benn weer comme jaar nii rek mm. quelques minutes su fekkoon beneen la moom du sóoraale loolu mi ngi soor su demee ñu muy jëndee suukar bu ñëwee nu muy négocier gars yi waaye ah. moom li muy xool mooy avantage su arrondissement am moo tax mu signalé ma loolu ok monsieur Ba muy liggéeyam sax mais dañu jëm ci loolu ba léegi ndax Euh, lii la waxoon la chaque année booy def rek da nga def surprise daaw final daaw bi dañu ñëw nga gis indi fi ambulance jox ko hôpital bi poste bi nekk fii ci biir nga nga leen nag final déwén naa leen joxal beneen surprise mooy que seen terrain bi dinaa ko dinaa ko miiré miiré nga ko lan nga dencalaat jeunesse bi wala lan nga dencalaat commune Saly ci final bi parce que foofu wax parce que honorable Yaya Sow hmm. dafa wax ne ministre bi moo ñu wax ne dafa ñuy am may ambulance pour Kër Mandoumbe ah, ñun tey ci tey saali benn ambulance moo ñu desee muy Kër Mandoumbe parce que si matin am na saali am na fan saal seet si na ma hôtel député uh-huh. ne ma ministre bi may na ko ambulance bon léegi nañ waxtaan ba xam nan lañ ci doxee uh-huh. ñu ànd dem ci néeg yaaya ñu waxtaan ci ba nga xam ne ma koy préparé pour andi ko pour kokoto parce que kokoto ñoo ko ñaanoon ambulance vraiment moom li ñu ko defoon ñaanoon def na ko après honorable wax ministre ministre bi jot ma téléphone ma ne ko man lii mooy samay tànk mu ne ma non incha allah màggal gi dafa xat mais prochaine semaine dinañ fexe mais nag yàlla euh, kon jaam ak pexe yàlla ak dogal mais ñun li ñu di jël décision bu ko soobee yàlla incha allah bu ministre bi continuer indi ñu ambulance amul problème mais suñu amul ambulance dañuy jël suñu xaalis pour jënd ambulance parce que ça xas nañ ko publier mënatul mhm. amatul arrière léegi avancé rek ci nii wala nii mais il faut mu am bu soobee mais kii bi euh, durée bi ñaata la war a pour lii nii terrain parce que gis nañu liggéey bi yomb na maçon yaa ngi fi ciment ngi fi lépp ngi fi ban non parce que entrepreneur bi moom li ma waxoon sax mooy def na ma euh, trois semaines boobu ci dafa sóoraale Euh, maçon bi mais moom lépp disponible na. léegi mi ngi sur place fer yi ak findi fer yi ak ciment bi yëpp mi ngi sur place loolu moom ci maçon bi la dépendre. Mhm. mais du ci entrepreneur. du ci entrepreneur bi. mérite ndax li war def yëpp. yëpp léegi kay dara xam ne des na ci terrain bi lu mooy maçon bi. mu miiree ko la terrain bi mu miiree ko mu yegg ak jàmm. final bi du kon ren fi lañ gën a rejoué. incha allah loolu moom ñaar xëy na tablé ko. xëy na tablé ko muy lam solo muy kaddu mu dégg woon maire bi njëkk indi ambulance ci finalam joxe ko ba léegi gis nañ ne dëkk yëpp ñu koy def loolu ci moom la jee ko kon lii sensu Saly la mais sensu commune d' arrondissement bu Saly parce que dañu am benn sous préfet bu xam ne benn préfet boo xam ne da leen déglu di xool li fi manqué mu di ko wax saa su ne xoolu ci dara muy am di Moustapha Ba nekk le préfet ñu koy tiitaroo saa ne waa Saly di ko tiitaroo Koungheul di ko tiitaroo ci ouverture am monsieur ñu ngi lay nuyu euh, di la euh, gis na te yéen ngi fi ci Saly Escale ci pose première pierre bi xam ne euh, le maire Makhari mu ngi ko def muy jour férié xam bëgg dañ ko bëgg xam ñi nga nekkal daf leen ay mbokk comme dul bu la neexoon nga ne dëkku fi da nga noppalu ba demee nga doog def mais tey nga ñëw fekkee pose premier pierre bi ñëpp teew saal yi kenn kenn desul mën nañ ko wax jeunesse yi xam ne tey bëgg nañ dara ànd ak ma xarit ñëpp nga ñëw teew lan nga yëg tey ci journée bi tey monsieur le préfet mbégte gu rëy laa ci yëg ndax euh, lu mel ni dafa yomb mhm. bi may ñëw arrondissement Idda Mouride mhm. benn terrain laa fi fekk mooy bi nekk euh, biir Idda Mouride mhm ñu ñaan leen yaakaar naa ne pose première pierre wu fas ya kenn def nañ ko teg nañ ci pose première pierre wu sali tey hmm. muy jour férié hmm. nga wax ne dañ waroon a noppalu mais hmm. ñun en tant que délégué du chef de l'état représentant de tous les ministres eh, noppalu waruñu développement moom moo ñu ñor rawatina nag ñu nekk agent de développement de formation teg ci Euh, àdduna dama koy wax fii ci biir Saalum. Mhm. ñett la jigéen ñi. Mhm. ñoom lay jiital parce que ñoom la lépp jiital. Mhm. boo fexee ba wax dëgg yàlla lépp nga yombalal leen ko. oyofal leen lépp kooku ci jaamu yàlla la bokk. kilifa diine yi parce que Saalum leen ne. boo déggee ñu ne nit day bay di dundee. di jarum jang alquran kesse tek te yalla tax fi la am muy salum salum ram donc bo occulté kilifa diine rek fi ci bir salum amna wacc nga yoon bi. Mhm. bi nag moy ñi nga xamne ne wër. moy la jeunesse. Mhm. jeunesse euh ak mouvement nawetal toujours dama kay faral di wax école la c'est la plus grande des écoles. Mhm. bu nit di jangé lu ne ci ngay jangé juk ci ngay jangé lo yoré am rew ëllëg lepp mu ngi ci biir nawetaan parce que foog naa ne mooy seul structure boo xam ne lépp dañ ko réguler tënk ko ci ay kayit de telle sorte que mhm. loo wax rek am na fu la ko nawetaan tegal donc buñ ne nag ñoom la ñuy bégal te borom réew mi xam ne la jeunesse occupe une place prépondérante dans sa politique mhm. muy œuvrer pour qu'il y ait un plein épanouissement de cette jeunesse là aduna euh, donc yépp dañ wara a àndandoo pour gunge xale yi xale yi sali nag comme xalé yi arrondissement idée mu dik yëpp yàquñu dara mais monsieur le maire fi ma koy gërëmee mhm. euh yaakaar na ni demb rek la ko mujjé wax damay rombu suma policier yi fi mbar mi ñu mbar mané monsieur le maire de bobak tay ma ngi fi doga jaar ah waaye li ma gis euh, ormalul la yow ormalul ma man mhm. ormalul état mhm. sénégal dafa wara rombu fu ñuy mbaaralee ay mbari sàkket def jël policier yi duggal ci li war nañ ci mëna xalaat mu ne ma yow loo xalaat ma ne ko entrepreneur boo xam ne moo yore waale terrain bii di ko tabax yaakaar naa ne boo demee ñaan ko mun na la fa defal loo xam ne nii pour la ma moment mun nañ am fu décent mhm. foo xam ne fu àdduna yëpp daje fa mu ne ma te bi ngay raccroché ak man laay dem ci heure boobu la dem waxtaane ji ak ki nga xam ne moom moo yore chantier bi kooku mu ne ko mun na ci xaj mhm. donc nit koo xam ne da nga ñëw taxaw euh, pour gunge ko waaye mu wal na man it bëgg naa xel mi ngi may xelal wax dëgg yàlla rafetoo naa ko mhm. macha allah mënu ma lu dul gërëm loolu mënuma ludul sant loolu mhm. mais mënuma ludul tamit ñaax xale yi mhm. parce que lii daf leen ni ñëw pour suqali leen ku ne na li nekk ci nawetaan buñ la bis tey nga war fubal mhm. saret ya ngay jël takk ko pour dem ci terrain bi ah suma mbokk ya nga xam ne ci suuf ñoom la lay defaral say cummeekaay togg ya ngay togg supporter ya lay top, ça un coup dafa am lu muy jar tey bu nga ñëwee tey bañ na leen seen terrain na caabi yaa ngi nii ku dugg juróomi wala bu tëb fukki dërëm ba ngay def ñu ne ki wax deug yalla def nako ci paas bi ngeen paré ñu ne code part yaangi ni li la équipe sangam mom li la équipe sangam mom li la zone bi mom li la comité d'organisation bi mom ñi nga xamné ñom ñoy tak fi li léegi lii lañ moom loolu luy luy luy suqali la je sais que les maires et l'État sont en train l'État et les maires sont en train de beaucoup faire ñu ngi koy def mhm. mais ces subventions là parfois à peine les couvrir l'organisation des parce que l'année sur soxla li dem ci équipe par équipe ça vaut des millions donc l'idée dafa ñeu pour compenser ce gap là mm-hmm. pour vous permettre un tout petit peu euh, de de de de de mieux s'organiser mm-hmm. de mieux développer votre foot local parce que nous football bi fini kay vous donne. donc équipe même si vous voyez la prolifération de ces tournois mm-hmm. c'est dû à ça dafa métti nit war a déparé feneen ba fii mhm. ñëw te amoo beneen source de motivation sur le plan financier loo xam ne moom moo lay dimbale ku ne xam ne nag waaw li ma fi fekk ci final bi yow fi la li fekk mhm. man dama tiit ma ne lii lépp wàcc ci biir salité war a dellu ci jeunesse bi mhm. fan la ko monsieur le maire jëlee leen ko na <laughs> mais pour wan leen ne moom it jeunesse bi ñor na ko te jeunesse boobu du moom la ñor dafa ñor état ku ne xam na tey li chef de l'état di def ci jeunesse bi donc ku ci mën a gunge dañ lay gërëm de la santé. ndax ñun ko ñun nga nous sommes des étatiques. très franchement je ne peux que encourager davantage une telle initiative. Mhm. Euh, di rafetlu mbir birmi, di ñaan yàlla nag su ñëwee. Mhm. Euh, ngeen yor ko yorin bu entretien mhm. entretien ba daf ci am solo. organisation lepp ci bir nawetaan amna. na. texte yi bind na lepp wéet leen waxtaan leen ñan ñoo war a yor terrain bi ñan ñoo ko yelloo ngeen jox leen ko ñu yor ko. pour nag ëllëg comme li ñu wax. Mhm. moom it mu sawar ñu am beneen ñu ne def nañ comme ni nga ko demandé ci gannaaw rek comme si gis sax sa xel dal na parce que bi mu fi ñëwee ba léegi sa commune de ñetti commune fa nekk. mais gis nañu trois communes yëpp ku nekk am nga état. am nga ko état sax la wax. parce que lii ku gis xam ne état la parce que terrain multifonctionnel boo xam ne manqué dara tey su paree jàmm fii ku fi ñëw pour dix ans mën na a am ay bras technique comme ni ñu ko amee. ok tey man lu ma doon dul woon rafetlu ñu ñëw ñu ne ma nañ dem rëddi terrain euh, sali bi inspecteur sport yëngu ci dara. Ah lu am solo la. ku mel ni inspecteur Kadam dévouement boobu noonu ak euh, li nga xam ne yàlla jox na ko ci xereñ. Mhm. te mu ngi koy jël di ko dugal ci football bi pour mu dem yoonam. ci sport bi. Mhm. d'une manière générale loolu tamit il faut ma profiter saluer waale ko. parce que tey mhm. euh, ku ne xam ne schéma bi ñu njëkkoon jàpp ñuy mhm. son intervention ses conseils mhm. euh, ça n'allait pas laa lay wax ni du tout marché dina won dox donc momit loxom bobu mu dugal ñu ko ci sant diko ko gërëm tey di encourager les maires dans ce siège là nit bu fekké ne amul lu la war pour nga dem teg ko lox jar ak fu mu mun a doon nag fu mu wara a mun a jóge oh, nga ne ko kaay ñu pour liggéey c'est l'occasion maintenant de lancer un appel la jeunesse de la commune de Sali euh, de, fédérer autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement et ne peut être que le développement. On peut l'atteindre à tout prix. Mhm. Donc, nous avons autour de cette question de développement. Nous réfléchir ensemble. Nous avons fait des Nous dama fi ñew xawma pour ñaari at la xawma pour ñetti weer mais bëgg na suma démé ñu né kat am di Moustapha jaaroon na fi bayina bayina fi mhm. li mhm. ki fi jaar ni yag yag am na ku mu remplacer mhm. donc la tax mbir mi euh, ñu war ko xol bul xol ne jëmm ki limu nekk mom mais la ka nekkal kan moko nekkal ku du yalla ya yalla mo ne bu waxtu sangam joté ki daf fiy jógee keneen fay ñew parce que momi dafa remplacer nit donc soko jappé il y aura pas de haine du am lenn lu nekk ci xolu doomu adama yi lu dul nag waxtu wee jot mu nekk fi su waxtu wi jotee keneen dina ñëw suñ ko jàppee noonu rek dafay nekk vraiment benn kii bu yomb boo xam ne ñii rek wax dëgg yàlla muy lu solo si jàmm rek lay nekk lii mooy euh, ñetti li yoon ñu fi ñëw mën nañu ko wax parce que di la ko sedd rek le maire mm. lépp euh, euh, lu xam def ci côté éducation côté mm. ñu santé bi jox na lépp lu ñu war a jëm tey jeunesse bi jot nañ seen wàll te ñu mu ngi préparé leneen pour jeunesse bi pour ñu mën a jot seen subvention war a préparé nawetaan yi nekk loo xam ne ñun tim gën communication def dañuy wër di di lépp fii saali lépp dañ ko communiqué ça veut dire kon lépp jaar na yow monsieur le préfet ñu seedal la ko ci kanam le maire kon lii la woon fii ci Saly Escale ak le préfet Mous Amdi Moustapha Ba mhm. ànd ceeg le maire ak euh, monsieur Kadam bi nga xam ne moom kenn du ko présenté ci département Koungheul ci liggéey bu rafet mi def ànd ceeg le représentant de l' entrepreneur Pamidoune Seck bi xam ne tey moo fi teewal Mous Seck ak jeunesse le président jeunes yi nekk fi yëpp ñu ngi fi jeunesse bi ñëpp ñu ngi fi ak ñeneen ñu xam ne tey ak premier adjoint au maire bu Saly sax mu ngi ñëw toog ànd ak le maire jàppale ko ci liggéey bi mooy tim kenn du ko ku ñuy présenté lii la woon fii ci Saly Escale mbokk yi dox daja ci ay kanam la pour ñu mën ko mu fi def loo xam ne rafet na barke démb mm. dox daja ay fan ci intégration bi jërë ngeen jëf mbokk